nekkoon biir Belgique dana intéressant parce que à deux mille seize laa fi mujjee mais bi ma ñëwee def naa quatre mois laa def après fekk premier juin je crois quelque chose comme ça c'était le début du Ramadan yàlla def na pour que balaa ma doon ñëw sama góor dafa amoon cancer phase terminale donc dana intéressant bi ma nekk ci sama séjour quatre mois yi moom mu ngi nekkoon ci ci benn barab moom moom ñu donc après bi ñu bi ñu làqoo fekk weer koor bi ma ne je vais en profiter ma dañ taxawu sama soxna après ñëwaat léegi nag yàlla li def mooy à chaque fois te yàlla ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay amoon euh, ñetti heure ci sama ci sama bopp ñaari heure cervical ak benn dorsal donc après pratiquement deux mille seize ba deux mille dix sept laay doon rek opération après yàlla def ma am ci euh, ma am ci taw léegi mu génne ci loolu nag dana étape euh, song jot bi nekk studio nekk benn instant bu ñu kiiwee ba nar a ñëw Sénégal c'était en deux mille vingt je sais pas deux mille vingt et un quelque chose comme ça après si le Covid bi te ça a bloqué pas mal de choses mais alhamdulilah après bu ñu si génnee rek je me suis dit que ne bon c'est normalement man dama war a ñëw normalement peut-être benn weer mais yàlla def na fi mu toll nii deux mille seize deux mille dix-sept deux mille dix-huit deux mille dix-neuf ça fait des années donc benn instant j'en ai profité li ma jotoon liggéey foofu noonu benn exemple la ñu ko fi bi ma ñëwee ma jokkoo ci ak Ibrahima Ibrahima Sarr waaw loolu loolu moo indi wax wax ji nekk ñu parce que ñu bari dañ doon wax ne donc feebar bi daanaka mën naa wax ne képp ku nekk ci jotaay da koy teewlu mooy wala aw rek wala amoo rek ndax li nga rey donc léegi lu sax maa ngi lay siyaar waaye waaye amul amul doole amul xel amul kàttan beneen dugub bu jëm ci yàlla eh. te yàlla li muy taw du leen du leen du leen yërmande dafa yërmande yàlla dafa gis doomu aadama parce que yàlla yàlla du yërëm comme papa ni mu yërëme wala yaay ni mu yërëme benn genre yërmande la am na benn instant boo xam ne dina la fekk nattu mais nattu bi épreuve c'est-à-dire que ne euh, sa marche personnelle mooy bi nga juddoo bi nga màggee parce que bul fàtte benn affaire am na benn neuf mois boo xam ne ñu ngi la ko jéem ci ci biir bi amul kenn ku la ko fekk man du ma du du ma far ak ñooñu di wax ne yàlla aay yàlla dafa aay yàlla il est ba nga ne donc lépp lu ma dal muy muy bànneex muy naqar dama jàpp ne yéen ci yàlla donc ay affaire yu ci yëpp quoi parce que ma ko gëm tey bon je crois pas que ne dinaa ko mën mooy que ne jullit bi nekk dana la ilaha illallah bu ko nekk oustaz de fi mu toll nii dimbale leen ba rek bu leen foog ne damay oustaz islam <laughs> waaye dama xam ne rek soo waxee laa ilaha illallah ba pare pare waaw mënoo wax ne waaw yàlla yàlla rek ko mën ba pare après nga teg si waaye soo si tegee waaye rek yaa yaa ngi waaye yàlla yàlla kenn mënu ko waaye bismillah

effectivement bon parce que am na xam nga bi nga juddoo sa papa ak sa yaay am fu ñu la jaaral ci toppatoo ci taxawu ba dugal la école moo tax ne li ñu ñaan yàlla mooy nga jeexal euh, cycle bi yëpp ba ñoom li nga xam ne moo doon seen seen bëgg-bëgg ak seen aspiration ci yow euh, loolu mat waaw mais dafa am lenn loo xam ne mooy sa papa ak sa yaay li ñu bëgg ci yow am na leneen loo xam ne nag loolu lan la yàlla bëgg ci yow loolu beneen beneen beneen wax da nga xam ne euh, bi ñu def suñu suñu ay études euh, bu ñu demee ba secondaire premier cycle secondaire si lañ commencé di foowantoo village mais dafa nekkoon rek benn xeetu passion nekk di ko foowee xam affaire xalaat bi ñu demee benn lycée ñu gën di prononcé ñu gën di prononcé wu ba benn instant nag boo xam ne moo moom moo la moom euh, instant boobu nag day nekk benn benn moment bu extraordinaire parce que d'une certaine manière tu es attiré par euh, benn affaire boo xam ne ça va beaucoup plus euh, dans le sens l'émotionnel parce que art art émotion la art subjectivité la c'est-à-dire ay yëg-yëgu biir yooyu noonu pour nga mën ko accorder avec la réalité réelle sa ay sa yaay bi ñu bi leen gënal mooy si si si la réalité réelle mooy nga am taxawaay mais comme ni mu la wax mooy que euh, jaam bu nekk soo juddoo li nga xam ne moom la yàlla ëmb ci yow sooy màgg lay commencé di génn duñ ne nii rek ne kii lii la déedéet c'est fur et à mesure ngay ngay progress life si ngay commencer di di entrevoir di entrevoir bon ci loolu nag euh, loolu moo ñu xiiroon ci musique ñu dugg si benn instant bi si dugg ñu foog ne suñu bëgg-bëgg bopp la dem benn instant nga xam ne lii moo la mag lii moo la lii moo la jiit du sa morom parce que am na tey fi mu nii peut émotion yoo xam ne doomu aadama yi koy dund yow artiste dafay dem benn instant boo xam ne tu deviens benn genre su benn canal boo xam ne sans pour autant t'en rendre compte da ngay les émotions des gens da ngay aspirer les les pensées d'une certaine manière c'est pas quelque de personnel su nekkoon personnel kon nit mën ko ndamoo waaye li nit mënu ko ndamoo parce que c'est c'est c'est personnel c'est pas c'est pas benn affaire man la mu faxaay loolu mais euh, loolu nga xam ne moom ngay assurer ci sa ay contemporain euh, à travers la réalité vécue nga gis nit ñi ñuy waaw léeg mu am bànneex léeg mu am naqar léeg-léeg mu am ay yëngu yoo ne loolu moom yëpp d'une certaine manière inconsciemment tu aspires après tu redonnes parce que moom ba nga xam ne tey fi mu doon nii su fekkee ne dugg nga ci benn affaire boo xam ne sa liggéey dafa am ñoo xam ne ñoom tam dañ si projet xew da xam ne loolu nekkatul ce n'est ce n'est plus juste euh, du boulot ah benn genre sacerdoce ah euh, ci loolu moom la ci loolu la ñu ci loolu la jeex ci loolu la ñu say ba waaw ba ba ba yëgatuñu suñu bopp euh, waaw. nekk di dox ci affaire boobu noonu donc dafay dafay logique que suñu defee benn album ba Sénégal ràññee ràññee ñu si dafay nekk suite logique mooy que ne parce que couleur dafa toog lu yàgg amul rakk na dafa jot benn instant couleur am rakk xam nga pour ñu mën a communier avec nos avec nos contemporains avec. suñu ay mbokk suñu ay xarit ah, suñu ay am di ay dëkkandoo parce que foofu la ñu yàlla euh, boole xaw ma ndax sama sama sama sama réponse doy na la je sais pas soo moytu je me suis un petit peu dama xaw a fay ba jéggi kii waaye gis <laughs> nga yeah ana Ece bismillah. Selamünaleyküm. Selam. Ben Hasan Deniz. Yapı Bacı Gülsüm Arvan Sıkıcam. man dafay delluwaat ci àdduna bi ci bari esprit yi nga ko faral di say bi nga dafa amoon benn lecture bi nga defoon ak revenu boobu qu'est-ce que ça dépend lan la indi par rapport ak coloration ci sa musique bu fekkee am na bu fekkee côté vibration qu'est-ce que ça apporté choix nombre de kii bi nga def ci album bi boo xam ne am na aussi quelque chose qui a influencé ça bu fekkee am na lan la. bon xam euh, nga nan lay nan lay. Euh, waaw. d'abord bànneex bi nga waaw mooy comme li ma la wax parce am na benn instant boo xam ne euh, expérience expérience kenn mënu ko mënoo mënoo mënoo jël sa expérience papa nga nga nga nga jëriñoo ko euh, personnellement mënoo jël sa expérience yaay nga nga jëriñoo ko directement peut-être mën na nekk. ay genre gars yi wala mu nekk ay kii yoo xam ne peut-être la dina la influence d'une certaine manière l'influence personnelle boobu boobu benn dimension benn dimension individuelle te comme ma la wax sax mooy que ne euh, mënoo ñëw te xamoo lan mooy kontaan foo nga dund ko woy métti te xamoo lan mooy métti sinon soo ko defee da ngay xam nga c'est euh, pour que la chose soit authentique, pour que la chose soit vraiment euh, il faut que si jaar-jaar yi nga xam ne moom ngay jaar man pour man loolu moom mooy euh, matériaux les matériaux fondamentaux yi nga xam ne ñoom ñooy tabax art parce que comme ni ma la ko doon waxee sànq monde art benn monde subjectif la tu vois mais vers l'objectivité étant donné que ne mënoo nekk naan damay woyee sa bopp sooy woy da ngay woy sa bopp ba pare mais da ngay woy da ngay woy sa ay morom tamit donc euh, allure bi nga xam ne euh, mooy allure mu daal algorithme bi pour man benn suite logique la boo xam ne par rapport ak ñu euh, ñëw xam nga après nekkaat si même si même tendance bi ak peut-être beaucoup plus euh, d'engagement artistique donc noonu lay mën a répondre question bi. Euh, bi ma nekkee Belgique bi ma kiiwee nekk commencé tàmbale projet dama euh, nekk ak sama ay gars euh, ñu liggéey benn trois quatre morceaux après benn instant je me suis dit que ne euh, ça va être su ma ñëwee Sénégal en collaboration avec avec Ibou xam nga dinañ mën def benn kii boo xam ne léegi après on a fait benn enregistré benn cinq ce qui a fait neuf morceaux pour man waaw. sooy compter soo soo parce que couleur bi ñuy def kii c'était quelque chose comme douze mais bii on s'est dit que ¿eh? parce eh, que le temps a passé aussi et puis ak technologie bi mu toll nii les réseaux sociaux ak eh, internet bi mu évolué xam nga léegi la santé les dans la vitesse donc dans la santé. c'est mieux que nga comprimer sa sa créativité pour pour gën ko mën a seetloo ak gars yi parce que sinon la plupart du temps moi je me suis rendu compte une chose nekk na ko Sénégal la plupart du temps euh, nit ñi même su dee da nga génnee benn vingt morceaux benn wala ñaar dañ si ciblé tu vois donc benn instant je me suis dit que ne euh, ak morceaux yi nga xam ne bi may ñëw moom laa indaale plus li nga xam ne moom laa def ça devrait être suffisant donc benn neuf morceaux la.

mais en même temps bon yemu yemuñoo ci loolu xam nga ñoom on se produisait de temps en temps pour di euh, tester et puis euh, nan la nan di yëg pour pour euh, la dynamique artistique la dynamique culturelle du donc fi mu toll nii ci ci ci album bi am na ci benn morceau boo xam ne peut-être en collaboration avec Maodo parce que li ma ñëwee sama premier single bi nga xam moom la moom la ñu génne moom laa ko defal ñu def ko clip yàlla def tamit moom dafa déglu musique bi rek man j'ai même pas eu besoin pour expliquer quoi que ce soit dama ko jox image xam nga mu des benn liggéey boo xam ne liggéey bu doy waar tu vois ba pare tamit ma yëg ne bon bokk nañ tamit benn une certaine culture culture musicale donc euh, ce qui a fait que ne am na benn morceau boo xam ne dañ ko def en collaboration benn featuring te benn instant tamit bon maa ngi ubbeeku pour euh, les artistes sénégalais parce que il faut aussi euh, chercher à communier avec les avec ses contemporains mooy ñi nga xam ne ñoom nga bokkal jamono nga xam nga am loo xam ne moom ngay laaj soxla ci ñoom da nga xam ne parce que mooy li mu la wax sànq am na lenn loo xam ne c'est personnel mais am na lenn loo xam ne moom ak sa moom ak sa jëm te musique art la culture la culture moo mag moo mag les individus tu vois donc euh, mën naa wax ne à l'horizon am na am na ay euh, projet de featuring et puis euh, beaucoup de scènes aussi yeah. voilà waaw waaw waaw bon loolu instant bii nii on est en train de travailler voilà fi mu toll nii à partir de là parce que tey fi mu toll nii bon état bi ak tey génn voilà génn nekk ay ay millions dinañ investir les meilleurs ba pare am na ay seen yoo xam ne bu ñu def de manière stratégique pour pouvoir promouvoir la formation voilà j'espère que sama réponse doy na kan moo amaat question bi seen question bi tuuti na de mu ne ah. ah yow foofu da nga teel a ñëw de parce que boobu man dégloo gu ma ko fii ah. wala xam nga xam nga normalement moo soow soo xam normalement ci couleur la bokkoon mais daanaka on avait quelque chose comme douze morceaux soo si bëggee def ay treize morceaux c'est trop bon Euh, si si si euh, état wu maquette la tolloon nag quand même donc moo tax bii paa bi ma ñëwee xam nga Ibou ne ma est-ce que duñu est continuer kii wu kii waaye est-ce que duñu continuer kii wu mais dafa mel ni yow li ngay wax ça n'a rien à voir avec ça parce que defe naa ci léegi est ce que est ce que est ce que mën nga ma may tuuti nga laxtaan man dama nekk journaliste léegi wax wax ma li ngay wax laal dimbala ma Aïcha demal ndeysaan ndeysaan ndeysaan bon mooy dama lay wax mooy gën a bon à travers chemin bi nga xam ne moom la chaque individu yi di emprunté ay bon léeg-léeg di nga am ay ñoo xam ne waaye da nga leen takk benn takk boo xam ne bon après yàlla def loo xam ne te yàlla buur la kenn mënu sutur ak moom tu donc euh, benn jooy la ko mën a résumé pour mu pour mu bañ a gudd gudd parce que man te ma tërëre <laughs> soo xamoon benn jooy la quoi voilà voilà ah waaw agglomérer bi ñu tudd jaarama léegi su dee da nga ko comprimé mu nekk jaarama léegi jaarama la la mooy sant yàlla sant yàlla parce que waaw mbir mi benn genre am na am na am na tukki biti waaye am na tukki biir tamit nga xam ne année bi nga juddoo am na ñu juddoo doo ak yow te génn ñu année boobu am na ñoo xam ne nattu dal na leen wala jàpp leen ah, feebar feebar boo xam ne waaw benn instant la donc tey yow soo demee ba am tey foo xam ne peut-être que egg nga fa ak nu mu mën ci demee mooy gars yi ñuy wax naan alhamdulilah ala kulli haal waaw mooy gën ak di la neex ak di la naqari sant yàlla moom moo nekk à la base donc loolu moo tax ñu jël album bi tuddee ko Jah Rahma Rahma parce que Rasta Jah c'est yàlla soo demee ci arab yi Arahma moom mooy moom mooy moom mooy yàlla suñu borom donc euh, noonu laa kiiwee tuddee album bi Jah Rahma c'est une certaine manière de rendre louange à Dieu donc keneen ku nekk ku fi am question tu peux mën nga mën nga ñëw jëlee si ñun gars yi jël seen dictaphone je sais pas parce que on s'apprête euh, à loolu ñu dañuy toog ci beneen salle léegi léegi donc maa ngi nii je suis ouvert à toutes les questions yeah voilà voilà Thank you.